lu leen neex su ko defee lépp ngeen jël ko muy seeni responsabilité ndax ñun am na yenn yoo xam ne mënuñu cee bokk ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien nee na jamono ji Ousmane Sonko dafa ne pata pataaral daal di noppi ana noppi Ousmane Sonko googee lan moo ko waral journal bi nee ñi nga xam ne ñooy gendarmerie woolu nañ ko Ousmane Sonko tegal leen li nga xam ne mooy immunité parlementaire ñi nga xam ne ñooy député yi woolu nañ Ousmane nañ ko ci mbedd mi maanaam ñëpp daan nañ ciy jot te xam ngeen ne Ousmane Sonko bu demoon assemblée nationale bu ñu ko dégloo ñi nga xam ne ñooy député yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar mbooleem loo xam ne Ousmane Sonko wax na ko fa bu ñu xëyee danañu ko gis ci presse bi yéen a kaay gi nee na en tout cas li Sonko ma ngi ci ay tactique ma ngi ci ay stratégie ma ngi nas ay pexe mbaadu nag Ousmane Sonko dafa am ay firnde yu ko leer na mbir mi maanaam complot la yoo xam ne ko tegee ci table bi ñëpp a kaay nee na Ousmane Sonko ak Macky Sall seen jàmmarloo bi yàgg na en tout cas Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu loolee nag jaaxaloon na sénégalais yu bare bare beneen bi Ousmane Sonko dund na lu métte métti ci lu jëm ci wàllum stigmatisation ndax tey ñu ne ko Ibadou suba ñu ne ko ab terroriste nga leen lu nekk tuumaal nañ ko Ousmane Sonko ginnaaw bi ñu ko rajee journal bi nag nee na li si des jamono ji mooy dànkaab fu Ousmane Sonko maanaam bëgg koo jël di ko yóbbu ci kaso bi Aïda Mbodj mi nga xam ne bokk na ci député yi taxawu Ousmane Sonko moom nag nee na mbir mi sax ab complot la boo xam ne gars yi ni ñu ko defaree dara baaxu ci waaye nag Macky Sall ci boppam moo nekk ci réew mi bëgg a doole ñi nga xam ne ñooy ay adversaire te am na ci loo xam ne mënuñu ko nangoo Aïda Mbodj ne Ousmane Sonko sax est ce que nag mënuñoo wax ne yàlla moom la àndal ndax am na benn waay boo xam ne da doon yónnee am message jaawale envoyé ko avocat Ousmane Sonko te la nga xam ne moo nekk ca message ba bokk na ci Ousmane Sonko duñu ko tëj ndax bu ñu ko tëjee réew mi day yëngu waaye nag nañu ko sonal nañu ko toroxal nañu yàq ab deram yéen a kaay gii di Les Échos ñu xëy fekk fa maître Abdou Dialy Kane mi nga xam ne mooy avocat xale bu jigéen bi di Adji Sarr moom nag nee na ñoom am nañu ay preuve yoo xamante ni daal danañu ko teg ci table bi bu ñu demee ba jàkkaarloo ak juge bi sa tribunal ba ndax moom maître Abdou Dialy Kane nee ñoom daal du ñu plaider ci mbedd mi du ñu plaider ci ëttu taskatu xabaar yi yéen a kaay gi nee na lu jëm ci dindi malaanu kiraayu Ousmane Sonko mbir mi yàggatu la yéen a kaay gi di Vox Populi nee na commandant Abdou Mbengue mi nga xam ne moo jiite section de recherche te yoroon enquête bii jëm ci mbiri Ousmane Sonko danañu ko jëlee section de recherche dañu ko yóbbu ci cellule antiterroriste maanaam kuréel gi nga xam ne ci gendarmerie la bokk tey xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum terrorisme foofee la ñuy yóbbu Abdou Mbengue mi nga xam ne moo jiite section de recherche a ko Quotidien ñu xëy fekk fa Ndeye Fatou Ndiaye Blondin moom nag nee na am na tiitaange bu baax a baax ci démocratie bu Sénégal ci li nga xam ne jamono ji moom la yàqoo nee na mbiri Adji Sarr maanaam sax dafa weesu li nga xam ne mooy ab complot te li nga xam ne moo nekk ci procès-verbaux yi ak li nga xam ne médecin bi wax na ko ne amul benn viol boo xam ne am na sa wala saxali bu jigéen boo xam ne yegg nañ si kawam loolee rek doy na sëkk jigéen ñi nga xam ne ñoo doon xeexal jigéen ñi noppi ci mbir mi yéen a kaay gi di réew na ñi nga xam ne tegoon nañu leen loxo te ñu jàpp ne ay pro Ousmane Sonko lañu ñi nga xam ne ñooy société civile bi ñoom Mari Sagna dañu doon tuumaal police ne dañoo fitnaal ñi nga xam ne ñooy xale yi leen loole nag waa police ñoom daan nañu koy weddi ba pare di menacer porte plainte yéenekaay gi nee na en ab defante ubbeeku na diggante société civile bi activiste yi ak ñi nga xam ne ñooy waa police yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñi nga xam ne ñooy waa kuddu teg nañu fa loxo ay jaasi ak ay paaka ak ay kuur yu doy waar a danañu ko ñàkk njiitu réew mi di président Macky Sall dina bokk si ñi nga xam ne ñoo njëkk a ñàkku niki suba ci talaata ji yéene kaay di enquête nee na lu jëm ci campagne vaccination bi suba lay commencé imam ak ulema yu ñoom nag ñoo ngi sàkku ci askanu Sénégal ñoom ñëpp ñu daal génn ña ko yéene mu xëy ñu xibaar nan ñu juróomi fan ci weeru octobre 2020 ci école des hautes études commerciales de Paris président ba ñu jóob bokk na ca ab débat boo xam ne la ñu fa doon waxtaane bokk na ci lu jëm ci wàllum koom maanaam Sénégal 2025 économique et sociétal président ba ñu jëm nag kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko fa bokkoon na si woo ñi nga xam ne ñooy investisseurs étrangers yi ngir nag ñu soppi aw doxin am beneen but bu yees boo xam ne moom la ñuy xool Afrique yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na kàddu yi nga xam ne président ba ñu jób yëkkati woon na ko ca o au niveau boobee ak alumni reprendre na kàddu yooyee yéen kaay gi di source xëy yóbbu ñu diwaanu Touba ne na foofee fan yi ñu génn dafa am ñoo xam ne lu weex tàll la ñu sol ñëw na dañuy def tawaaf fi nga xam ne mooy jumaa ji waaye nag dootuñu ko dolleeti dóor nañu leen bañ ne am na juróom ñoo xam ne teg teg nañu leen loxo tey jii danañu jàkkaarloo ak procureur yéenekaay gi di Stades nee na compétition africaine des clubs Jaraaf ak Teungueth FC daan nañu qualifié loolee nag histoire dina ko bind kaa gi nee na Manchester City Premier League ji maanaam soo moytuwulee dina jël championnat bi Liverpool wéy di am ay jafe-jafe yéenekaay gi nee na Paris Saint-Germain moom ti Monaco ko fekk dëkkam daal di koy gagné ñaari bal ci dara yéenekaay gi di sunu lamb nee na nag benn fan ci weeru mars la ñuy ubbiwaat lamb ji waaye nag est-ce yëpp dajee na ngir lamb ji mën a am ci réew mi société nationale